jërë ngeen jëf mbokk internautes yi li nga xamante ni mooy ballon d'or bu atub 2022 te jii rek lañ ko nar a joxe waaye nag li nga xamante ni moo si gën a yées nekkul dara ki nga xamante ni mooy war a jël ballon d'or bi ñu bëri nag ñu ngi lamlaame ñi naan kii di Karim Benzema di zooru Real Madrid bi wala sax moom mii di l'international français moom rek la ñëpp jàpp ni mooy war a jël ballon door waaye nag ki nga xamante ni moo si tottal loole nag jamono ji la kenn xamagul ndaxte nag Sadio Mané moo war a nekk deuxième wala Robert Robert Lewandowski moom rek moo war a jël li nga xamante ni mooy deuxième place ba wala sax Kylian Mbappé wala Vinicius Junior wala Kevin De ñoom rek kan moo si war a jël li nga xamante mooy si a kaw pëjëm bi ginnaaw nag ba ñu bëri jàppee ni kii di Karim Benzema rek moo nar a jël lii di ballon d'or bi waaye nag ñu ngi joxe foofee ca France ca théâtre du Châtelet nekk foofee ca centre ville bu Paris waaye nag ballon d'or bi tey ji rek lañ rek foofee lañ koy célébrer ca France ca Canal Plus rek danañ ko teg wala Bein Sport si la ñuy xamal ki nga xamante ni moo nar jël ballon d'or bi ñëpp nag dañoo jàpp ni Karim Benzema moom rek moo jëloon li nga xamante ni mooy Ligue des Champions te jël nag bokk na sax si meilleur buteur yi nga xamante ni nag ñoo nekkoon ca Ligue des Champions wa loolee rek moo tax ñu bëri jàpp ni moom rek moo jël ballon d'or bi waaye nag africain yëpp dafa mel ni nag dañoo nekk si ginnaaw ki nga xamante ni mooy Sadio Mané di l'international sénégalais doomu Bambali bi ñu bëri nag dañoo jàpp ni moom rek bu ñu moytulee dara du bokk ci podium ba waaye nag xel xalaatul benn yoon moom Sadio Mané bañ a jël li nga xamante ni mooy deuxième place bu Ballon d'Or ndaxte rek ginnaaw loolu nga xamante ni mooy finalu coupe coupe final li euh, championnat ligue wala sax ligue des champions bañ ko doon def dañ doon wax diggante Liverpool ak ki nga xamante ni mooy euh, Real de Madrid ku si jël li nga xamante mooy final ba yow rek sa jour boobee nga xamante moo nekk favori si Ballon d'Or bi moom rek moo ko war a jël keneen deuxième te gis nañ ne kat ki nga xamante ni mooy Karim Benzema moom rek moo jël li nga xamante ni mooy lig des Champions bi ak de waaye loolee sax moo tax mu nekk li nga xamante ni mooy favori bu Ballon d'Or bi kon nag buñ fa jógee dinañ wax deuxième place bi deuxième place bi nag benn yoon ñu teg ko beneen jour bu dul ki nga xamante ni mooy l'international sénégalais di wuyoo si turu Sadio Mané moom mooy di jéew foofee ca Bayern de Munich championnat bu Allemagne kon nag am na sax ñu naan bu ñu moytulee Sadio Mané dana sori waxuma la sax deuxième wala troisième place bu ñu moytulee du bokk ci cinq premiers yi ndaxte rek ñu bëri dañoo jàpp ni ki nga xamante ni mooy De Bruyne wala Lewandowski ñoom rek dañuy jël première wala li nga xamante ni mooy deuxième wala troisième place bi kon nag Sadio Mané ñu ngi taxaw di xaar ban place rek la war a jël.